ne baabu ma jaa fi chacri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam boo ne chicru muy wëy waaye chacru mooy kawar baabu ma jaa lii mooy buntab li dikk fi chacri rasulillahi ci naka la kawaru yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam meloon dana ci indi juróom-ñetti xadis hmm. nee na xaddathana caliyu bnu juxrin hmm. sëriñ bu ñuy wax caliyu hmm. doomi juxr nettali nañu axbarana ismailu bnu ibrahima sëriñ bu ñuy wax ismail doomi ibrahim xabaare nañu an xumaydin <coughs> jëlee ci sëriñ bu ñu wax xumayd an anas ibni malikin jëlee ci suñu sang anas doomi malik radiyallahu anhu yal na yàlla gërëm ko qaala mu ne mm. kaana sha'ru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ila nisfi udunay mm-hmm. kaana yeggoon na mm-hmm. shaaru rasulillahi kawari yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama mm-hmm. ila nisfi udunayhi ci digg ñaari noppam boo xaajee nopp yi ñaar mm. genn wàll ga mm. kawar gi wàcc na ba àgg fa xadis mm-hmm. ju wér la mm-hmm. da gis lu romb loolu mm-hmm. da gis léegi léegi lu ko gën a gàtt mu ngi wane rekk ku nekk ci ñoom ba ngay nettali yaa ngay nettali la nga gis ba nga ko gisee wala benn ci meloy karawam bi nga koy gis mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. nee na xaddatanaa hannaadu bnu sërri xaddatanaa mm-hmm. <clears throat> nettali nañu hannaad hannaad ibnu sërri doomi sëriyu sëriñ la axbaranaa abdurahman <clears throat> ibnu abi zinaadi sëriñ bu ñëw abdurahman doomi abi zinaad xabaare nañu an Hicham jëlee ci Hicham ibni Arwata ibni Urwata an Hicham ibni Urwata jëlee ci Hicham doomi Urwa an abi jëlee ci baayam di Urwatu an Aishata mu jëlee ci ndey Aishatu radiyallahu tabaraka wa taala anha qaalat mu ne kuntu nekkoon naa agtasilu di sangu ana man aishatu wa rasulullahi ak sayiduna wa maulana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min ina in ci ndab hmm. waaxidin bay benn hmm. bokkoon nañu benn bassin hmm. buñ doon sangoo wa kaanata booba nekk na lawoo ñeel ko moom yonentu sallallahu alayhi wa sallama chaarun kawar goo xam ne fawqal jummati wàcc na ba kawe fawqal jummati kawe na mbaggam mhm. wa duunal wafrati mhm. waaye e, naka la tuddati fawqal jummati kawe na mhm. mbagg ma wa duunal wafrati yiis na lobbi nopp loolu rek la ko wax nga jumatu mooy kawar gu wàcc ba ci ñaari mbagg yi wafratu mooy kawar gu wàcc ba ci lobbi nopp maanaam kawar gi yeggut ci mbag yi mm-hmm. waaye romb na nopp yi mm-hmm. loolu la bëgg a wax mm-hmm. wakkaante nekkoon loolu ñaan na ko charon kawar goo xam ne fawqal jummati kawe na nekk na ci kaw jummatu waaye wa duunal wafrati wàcc na ci wafratu jummatu mooy kawar gu wàcc ba ci mbagg wafratu mooy kawar gu lëw waaye dégg nga ba ci lobbi nopp maanaam karaw gi romb na nopp yi mm-hmm. waaye yeggutoon ci mbagg yi mm-hmm. loolu la bëgg a wax mm-hmm. eh, na xaddatana ahmad bnu mani ahmad doomi mani nettali nañu sëriñ la xaddatana nettali nañu abu qatan kooku te nee na xaddatanaa nettali nañu shucbatu mm. an abi isxaaqa mm-hmm. jëlee ci sëriñ bu ñëw abi isxaaqa mm-hmm. an ilbaraai mm-hmm. jëlee ci suñ sang albara bni aazibin saxaabi la radiallahu anhu yal na yàlla gërëm ko mu ne kaana rasul kaana nekkoon na mm. rasulullahi yonentu sallallahu alayhi wa sallama mm-hmm. marbuan di kuñ diggu doomul mm-hmm. gàttu toon mm-hmm. njoolu toon rëyu ku diggu doomu la waaye njoolaay la gënoon a jege am yaramit la gënoon a jege sewutoon baida ma bayna al mankibayni aji soree la la nekk ci diggante ñaari mbagg mbaggam mm-hmm. baidama aji sori la la nga xam ne mm-hmm. baynal man ki bay ni nekk na ci diggante ñaari mbaggam mm-hmm. ma ngay wane ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam ku dégg nga euh, ku ku màgg la woon ci bind waaw ndax ñaari mbagg yu soree dafay wane dënn bu mag dënn bu dënn bu yaatu mu ne wa nekkoon na jummatuhu mm. kawari yonantu sallallahu alayhi wa mm-hmm. gi nga xam ne mm. eh, dégg nga wàcc na jëm ca mbagg ya mm. tadribu di laal tadribu di yegg shahmata udunayhi mm-hmm. lobbi ñaari noppam mm-hmm. Hmm? karawam wàccoon na bay ba ci lobbi ñaari noppam mm-hmm, mm-hmm. loolu misaal la mm-hmm. ci nim gisee woon kawaram ca jamono joojo xam nga ne yonantu sallallahu alayhi wa watu mm. lu dut mu nekk ci xaj mm. mbaa ci umra waaye lu dul loolu kawaram fa ko daan bàyyi mu gudd te daan ko defar ndax nee ku yàlla jox kawar mm. na ko teral man kaana lahu shaarun waaw fal yukrimu mm-hmm. ku amee karaw na ko teral nee na xaddathana mm-hmm. Muhammad ibnu Bachar Muhammad ibnu Bachar nettali nañu xaddathana Wahb ibnu Jarir mm-hmm. wahbu doomi jarir ibnu haazim nettali nañu hmm. qaala mu ne xaddatanii hmm. hmm. nettali na ma abi sama baay an qataada te jëlee ci qataada qaala mu ne qultu mos naa wax li anasin sayidna anas ibnu malik kayfa kaana nan la meloon shaaru rasulillahi kawri yonantu sallallahu alayhi wa qaala mu ne hmm. lam yakun nekkuloon bil jaadi di aju kotomu hmm. hmm. wala bi sabti du caageen muy aji tàlli kaana nekk nekkoon na yablugu di xàgg di jot shaaruhu kawaram shahmata udunayhi lobbi ñaari noppam kawaram kërle wutoon ba waaye tàlli wutoon guddoon na ba yegg ci lobbi noppam sallallahu alayhi wa nee na xaddatanaa hmm. nettali nañu hmm. muhammadu bnu yaxya hmm. bnu abi umar almakki yu koy ko jug makka nee na xaddatanaa nettali nañu sufyaanu bnu uyaynata an abi najiixin jëlee ci abu najiix an mujaahidin mu jëlee ci mujaahid an ummi haani jëlee ci suñ sang waaw ummu haani binti abi taalib doomi Euh, waaw abu taalib mm-hmm. turam moom abu taalib mm. duut duut abu taalib maanaam abu taalib euh, dàkkantel la mm-hmm. mooy bàyyi taxu yonentu sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moo ko yar mm-hmm. mooy abdu manaaf radiyallahu tabaraka wa taala anha waa abu umu haani mi mook àll yu baay mm. Mm. mooy nettali qaalat mu ne mm. qadima ñëw na rasulullahi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam makkata makkatal qudumatan ak dikk ak ñëw wala hoota booba ñeel na ko moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam arbau ñeenti jubbu maanaam kawar gi booba bari na bari ba gudd na ba nga xam ne mm. daf ko mujj def mu mel ni ñeenti létt waaw mm-hmm. loolu lu muy firi mooy yonantu sallallahu alayhi mm. mi ngi ci tukki mm. tukki mi yàgg na ba mënta defar kawar gi ni mu ko daan defaree mm-hmm. mu daldi ko raw noonu ñeenti raw mm-hmm. ndax kawaram dafa guddoon sallallahu alayhi wasallam waaye du ne dafa daan létt karaw gi tukki ma moo gudd mm-hmm. ni ko abdu ni ko ibnu xajar waxe mm-hmm. ci ci ci sharxam ci fatxul baari mm-hmm. nee na kawaraam dafa gudd ba mujj nekk di ay jubbu dégg nga mu daal raw raw raw ko nag ngir dégg nga yàggaayu tukki ba ak guddaayu kawar ga xaddasanaa mm-hmm. nettali nañu mm-hmm. suwayd ibnu nasrin mm-hmm. nee na xaddasanaa nettali nañu abdullahi ibnu almubaaraki an maamarin jëlee ci maamar an thaabit jëlee ci sëriñ bi ñuy wax thaabit albunaani an anasin jëlee ci anas radiallahu anhu sahaabi la anna shaara rasulillahi naka kawar yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. kaana yeggoon na mm-hmm. ilaa ansaafi uduna yi mm-hmm. jëm ci waaw digg ñaari noppam alayhi salaatu wassalaam nee na xaddatanaa nettali nañu suwayd ibnu nasrin xaddatanaa nettali nañu abdullahi ibnu lmubaaraki an yunusa jëlee ci yunus bin yazid doomi yazid an zuhri yi mu jëlee ci cheikh al imam az-Zuhri xaddasanaa mm-hmm. nettali nañu mm-hmm. ubaydullahi mm-hmm. ubaydullahi ibnu abdillahi ibnu utbata an ibni abbasin jëlee ci saydna abdullahi doomi saydna abbas radiallahu anhuma ne yàlla boole leen gërëm ne anna rasulallahi naka yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama kaana nekkoon na yusdilu di yoor shaarahu kawaram maanaam yonentu sallallahu alayhi wa sallam mm. da daan bàyyi kawaram mu yoore mm-hmm. wa kaanate booba nekkoon na almushrikoona yéeféer yi mm. yafriqoona di tàqale ruusahum mm. seen waaw kawar mm-hmm. dégg nga yonentu sallallahu alayhi wa sallam da daan booyal kawaram yi mm-hmm. wuuteeg mushrikoona yi ndax mushrikoona yi dañ daan tàqale seen karaw yi côté bii ñëw côté bii bii ñëw côté bii lu tax nag mu ne pawakaana ndax nekkoon ahlul kitaabi mm. ba ñooñ téere yi yahood yi mm. ak nasaraan yi mm. yasdiloona di yor ruusahum seeni bopp wa kaanata nekkoon na moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam di bëgg muwaafaqata ahlil kitaab yi dëppog ahlil kitaab fii maa yu umar fiihi bi shay'in ci loo xam ne digaluñ ko ca dara ndax lépp loo xam ne joxuñ ko ci woon ndigal hmm. mu niroo lekkoog ñi nga xam ne am nañ diine ju jógee ci yàlla hmm. moo ko gën a loon mu niroo lekkoog bokkaalekat yi hmm. summa gannaaw ga nag faraqa tàqali na karawam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam summa gannaaw ga faraqa takkale na rasulullahi yonentu sallallahu alayhi wa sallam ra'sahu boppam mooy boobu am na ci ndigal am na ndigalu mujj ga bu ko neexee waaw yoor su ko neexee tàqale moo tax gannaaw ga tàqale na waaye lu jiitu muy am ndigal hmm. fa daan bëgg di niroo ahlul kitaab yi xaddatanaa hmm. hmm. nee na nettali nañu Muhammad ibnu Bachar xaddatanaa nettali nañu Abdurahman ibnu Mahdi an Ibrahima jëlee ci Ibrahima ibni Naafic almakki kay ko jóg Makka an ibni abi Najiixin an Mujahid jëlee ci waaw Cheikh Mujahid waaw an ummi Haani an ummi Haani mu jëlee ci suñu waaw euh, sang Mm-hmm. umu hani mm-hmm. radiallahu tabaraka wa taala anha qaalat mu ne mm. raaytu gis naa mm. rasulallahi yonantu sallallahu alayhi wa sallam za dafaira muy boromi jubbu mm-hmm. arbain yay ñeent mm-hmm. wala borom yi létt arbain yay ñeent mm-hmm. mu delluwaat rek ci xadis jëlee ndax ibn ummu haani dëkkutoon madina makka la dëkkoon kon bu gisee yonentu sallallahu alayhi wa sallam ak kawaram gi nii mooy yonentu ñëw na ñëw yi nga xam ne ci la ñëw makka ni mu ko leeralee ci xadis ju njëkk ja ne qadima rasulullahi xutmatan xam nga yonentu sallallahu alayhi wa sallam bi mu gàddaawee ñeenti yoon la ñëwaat makka benn yoon bi mooy umra gi nga xam ne moom la njëkk a jóg mm-hmm. te ñu dëpp ko muy ci Xudaybiyatu mm-hmm. ñaareelu yoon bi mooy umra gi nga boobu yegg siwut Makka mm-hmm. ñaareel yoon bi mooy umratul qada ci atum juróom ñaareel atum Xudaybiyatu ba mu ñëwee na ñetteelu yoon bi mooy fatxu Makka ba mu ñëwee ubbi na Makka dégg nga daal dem Xunaynin jógee fa ñëw umra soog a ñibbi ñeenteelu yoon ba mooy at mi nga xam ne ci la aj si muy mm-hmm. atum fukkeel ma mm-hmm. ci la aj ajam googu mm-hmm. moo tax ñuy wax ne yonantu umra yum umra yëpp ci dul qaadati la wa kulluha waqaa fi xam ne moo ci yoonam yooyu nag ci la ko ndey umu haani gis kawar ga gudd ba def ay jubbu mu raw ko ñeenti raw moom lay wax ne raayatu gis naa rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi mm-hmm. wa sallama mm-hmm. gis naa yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. za dafaira muy borom kawar gu ñu raw arbain wala za dafaira muy boromi raw ñi arbain yey ñeent sallallahu alayhi wa sallam hada wa sallallahu ala mawlana muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallama amin baax na foofu